Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Njaareem Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba ana ko sopp Khadim al Mustafa borom Touba borom Njaareem خادم المستوى خير الخديم خادم الرسول أحمد بن خادم الخديم مد مكة باي شيخنا الخديم شيخ أحمد بن خديم خير الناس خادم الرسول شيخنا الخديم برم تكب مكبي برم يبسك مكبي برم جماع يمكي برم مكان كمكي برم غير السفر برم مسالك الجنان سرين توبان yaaro ko soppu baayu alaaji Muhammadu Faal jàmbaar ja san januar ba nu amee ku mel ne daam muy bëggal ci mustawa hamdi rabbil karim la sadiqa lahu wa sadri al yawma nuran saati samara محمد محمد صلوات الله في أبدا عليه في اسمي اسمي في قرار أدعو إلى إلهي لما الدعاء لجملة الخلق ما يختار من ناجته جل أقواما وكرمني تكريما هادئا وكلي من لقن بريا رحمن وعبد جميع الخلق رحمة من يغني عن الصر من قرآن وخرا وتمد المصطفى عن كل مفسدة waltaaraamil xalxa yaa man jaduhum bada mbokk yi ginnaaw bu ñu ñaanalee a Cheikh Mouhamadinil Muntaqa mu yàgg fi te wér ay yadahu llahu wa nasara wa akmala jamia nawaaya tijaa jaddihil karim al Cheikh Ahmadul Xadim mu mottali mboolem yéenam yëpp mu mel ni loolu sax sëriñ Mamoun mën nañ ko teg sa loxo ndax gis nañ sa taxawaay ci wetu soxna si muy soxna baali Bali Mountakha muy taxawaay bu rafet boo xam ne yoonu murit soxla nañu ko xam nga sëñ Mamoun nit ku ne ci wetu kilifa te boobu ba léegi mësuñoo gis ci internet bi ñu croix la loolu man dama koy seetlu de lu am solo la li nga wax ci say kàddu ne bis bi nga tàggu kilifa noonu la deme de démb ci bëccëg laa ne ko sëñ Abdul Karim Mbacke borom Makar ma xam ne ko Ahmadou Gueye Fifty mu Serigne Saliou bis bi ma bokk ak moom. du nga jàmbaar de. muy 28 décembre bi Serigne bi làqu woon. Ah, yàlla da koo defal sutura mu di ko la ca Ndakaaru. mu ne ma loolu am na solo loolu taxawaay boo ci war a taxaw rek jaadu na ma xëy mbooloo mu bari di ko wër për bis ma yor kàddoom waaye bàyyi ko fa ñëw teew si ndax xam na ne Serigne Sall luñ ma woo luñ ma ci woo dinaa wuy ji waaye nag danañ nuyu sa waajuru tedd wii muy soxna Xadi Ba gis nañ ni loo nekk gu na la ci waaye nag fi nga tàbbi neex na ko ma tënkal leen ko sëkk bu gàtt Serigne Touba moo wax ni li may def ci nit ndey yu liggéey mënu ko waaye dama ko def ci ku ndey yu li may def ci nit ndey ju liggéey mënu ko nag waaye duma ko def ci ku ndeyam liggéeyul moo taxoon mu ne soxna jaara mat nay ndey ku ne dégg wax ji de soxna jaara mag nay ndey ku ne sëriñ Mbàkke murit ñi ngi nuyu ñi ngi fi teewal ñëpp wax naa ko léegi ne ko maa moom defandoo nañ loo xam ne mënatoo koo defandoo keneen awa ñuy awante bés maa ngi moom bu bët set ah. en 1992 booba ndaw la may ndaw xam naa ne bu ñu doon xool suñu at maa ko féete ak mag waaye nag boobu ay ndaw lañu sëñ bi fonk ko lool te la yaa ngay jël de sëñ Mbàkke Murid te xam naa xam naa waxal wàlliyu lu du dëgg ni mu toll ndax sëriñ Tuubaa moo wax ne wa man taarada li sihri lawliya bi nahwi wal arudi qat an buliya képp koo xam ne fekk nga waykat walli yu woy ba noppi ngay diingat woy wi ah. naan grammaire bi baaxul wala arab bi baaxul nee na dañ la nattu kon li may wax ci moom lu wér la mën naa ko sëñ Mbacke Babou mii mën naa ko sëñ Jili mii wax ko ci ñi fi teew ñëpp di waa kër Serigne Saliou ci ñuy wax ñëpp waa kër Serigne Saliou waaye ci wàllu donga yi ñoom Baba Mangane Baba Mangane mii ñoom ñii nekk nañ di waxtaan di fut di jàng ci wetu Serigne Saliou may wax ak moom ñoom ñaar ñee. may wax ak sëñ bi ñoom li leen njëkk a jaaxal mooy sëriñ Saliou mu ñuy wax ki jàng xas da wax waaye wax ci benn la boo ci daara yi laay waxtaan ak moom ñëpp ngi may film yaa may jël waaye sëñ musaa Niang mas na maa wax ne ma waaw oh, galas yaag sëñ Saliou lu xew ba boo ñëwee boo ko boo ko nuyoo mu coupé lépp ma ne ko dama koy wax ci li bëgg muy dongo yeeg daara yi képp bañ noppee ñoom ñoom ñoom ñee bañ noppee ñu ñëw nuyu ko mu ne leen galas mais fu ngeen gis sama it lay dox ñu ngi ne man la wax day am seere de ñoom ñaar ñee sëñ Xaadim mu sëñ Abdou mu mi ngi ni toog bis bi lu ko ñor la sëñ Ahmadou Gueye Xaadim Fall mii at mu jot ni la koy defee bis bi lu ko ñor la ba nga ko waxee léegi ëpp na juróom-benni fan. borom ndar xam nga waxoon naa fi daaw ni Serigne Sall day defar nit à distance kii à distance la ko Serigne Sall defar distance. waaw Serigne Sall day defar nit distance nee na sama dongo dana nekk sama daara du mel ni ma bëgg waaye su génnee mel ko. daal ne ku ngeen gis ma di ko teg sama oto bi fonk ko lool bëgg ko lool mu mel ni ngeen gis ne lool ba mu nar a yàq danaa leen leeral tey daal ne dama amagul ci moom yaakaar waaye ku ma am ci moom yaakaar du ma la def noonu. sëñ Modou Mamoun diggante Mauritanie ak Njaareem bu fi dara xewoon. Serigne Saliou Mbacke du feeñ Serigne Abdou Samane Mbacke du feeñ Serigne Abdou Borom Dër bi du feeñ moo tax sëriñ Fallou Mbacke mu yaatub dënn mi mi nga xam ne dënnam moom rek la ko yàlla jox tubaab yi mas nañ ko cee laaj ne ko ndax lu tax nga bañ tubaab sëñ Fallu ne leen bu ma des gor bañ tubaab ndax liñ bëggoon suñ ko amoon duma am sama rakk yi te rakkam yooyu saa yu Mbacké ci la bokk. moo tax Mauritanie jooju Mauritanie jooju laata muy xew tubaab yi ñu ngi fekk sëñ bi daaru mën naan di ko inspecté xanaa xamoon na sëñ Xaadim dégg naa sëñ Baara wax ci loo xam ne moom rekk ko ci wax sëñ Baara damaa yor ay war a xaatam yu mu bind. ay këyit waaye sëñ Baara ñiy téye xalima ci àdduna gisuma ku ko kum ci dàqute bind moo ko sëriñ Fallou Mbacke seeni xalima yenn xalima rek la loolu la Seydou Karim doon laalaa yujaarika fi l maydaani min ahadin fi l ilmi wal xilmi aw fi l juudi wan nasabi ah, loolu la waxoon sëñ Baara de loolu la ko sëñ Fallou wax laalaa ñaari arab la yuñ baamu loolu ñu wax tawkiid lafsi laalaa yu jaarika amul koy weranteeg rawanteeg yow ci lef bi kenn mënut a rawanteeg yow sëñ Baara na ko lan la mu ne ko xam-xam ak tabe ak askan wu baax sëñ Baara Mbàkke nee na bi mu ñëwee Mbàkke Baari ak sëñ bi ndax mi ngi feeñee tubaa moom mooy awwalu waladin wulida fii Tuubaa bi feeñee Touba ànd ak sëñ na Mbàkke Bari kon juróomi at la ndax 99 89 amatal satin mu ànd ak sëñ bi nee na juróomi at laa am wala lu koy yées bindam laa leen di wax de sëñ Baara ni muy làkkee arab doy na waar mu ne mu ne wala lu koy yées nee na am ci soxna yi ci biir kër gi ñu ñu ñu ñu wax ne ma sëñ bi buy tukki ndax da ngay ànd ak moom. ndax booba tàmbali yëngu bi tàmbali la nee na sëñ Baara nee na ma ne sama baay fu muy tukki nee na soxna si daal na kebej ne ma dama lay nax rek tukkiwut fenn sëñ Baara nee na ba ma koy wax booba xam naa bis bu sëñ bi dem xam naa bis bu sëñ bi del si. loolu ci mbindam laa ko gisee man. maanaam gaynde Baara. sëñ Baara it wax gis naa mu wax ni bi ñuy inspecté sëñ bi te Boursine bokk ci Boursine ku mëndoo benn ñi doon inspecté sëñ bi ci la bokk waaye sëñ sëñ Mouhamadou Lam Diop daga neen da a gën pas-pas da leen a gën pas ndax nit yi buur yi dajale woon ngir ñi ñëw inspecté sëñ bi ci la bokk waaye nee na bi ñëwee ba sabax mi dina sabax sa la wax sëñ Baara sëñ Baara nee na Lat Joor safru la Boursine ku mëndoo benn dane dañuy fanaanal mu ne mu ne mu ne gaañ yi damay dem ba daaru manaan waaye bu kenn yëg ni maa ngi dem sëñ Baara nee na mu rocciku ñëw daaru man naan gisee sëñ bi wàcc fa gawar yi gaw kër gi doog a delluwaat mi na sabax fajar di jot mu àndaat gaañ ñëwaat nee na bur sin commando fen Diouf bi ñu demee ba inspecteur ba gisuñ li ñu gis moo ne sëñ bi gaañ yaa leen man kaay ma yóbbu la nga fekk leen Daaru Salaam fi ne moo yóbbu sëñ bi Daaru Salaam mu dajeeg tubaab bi pour dem gànnaar Buur Sine moo ànd ak sëñ ba ba Daaru Salaam mu fekk fa tubaab bi seen seen quartier gi ñu ànd ak moom ñëw ngaabu biñ jógee bu ñëw njaareem continuer dem xombal jaar Touba Toul dugg biir Tiwaawoon jël terrain bi ilaa Dagana eh moom mooy tukki bi waxoon ne man sanna zayri xibba ami ak sa si misla masiri rasa ami jaysasi sabata kawnuhu jahoolun xumra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yakku sayru aksasin siwa jaza man li yaxaada baadu waadan najasa sëñ Tuba nee na sama tukki bii may tukki ama ak sasin muy 1301 ku jàpp ni moom tukki ama jëy sasin 1313 ñoo yem boo xamoo dara ñu ne ko lan la mu ne yàlla doon teel sama dund daal ne tukki ak sas dafa am benn dëgal bu ma yàlla dëgaloon ci biir géej gi moom laa doon jëli muy wérdul maxuus moo tax ba mu agsee ba Sarsara ba mu fa defee weer ba mu tàmbalee weeru kor wa la jël wirdul maxuus jox da ko wax du bàggoo léegi nag Mauritanie jooju yi ba mu ci bàyyi ko ba ñëw ci yéen Jolof ci la sëñ Abdou Borom dër bi feeñ moo tax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na damay dégg ñu naan Abdoul Aziz man da xaw ma Abdoul Aziz lu ko ci indi waaye sëñ bi Abdoulahi la bind ci kayit wa jox ko sëñ Moxtaar Bintaloo waaye ba mu yàgg mu ne waaye rek Abdoul Abdoul Abdoul Aziz da mooy Abdoul Abdoulahi da mooy Abdoul Aziz rek daal na xëy na kon loolu it ñu jublu waaye sëñ Tuubaa moom nee na ci kayit wa Abdoulahi la ci bind ba loolu xewee nag ci la ñëw nag. sëñ Abdou Samad ak sëñ Ibrahima Mbacke tàmbalee feeñ gaa ñoo ñëw ba ba sëriñ sëriñ Abdou Lahad ñëw sëriñ Abdou Khadir ñëw Cheikh Saliou Mbacke agsi bi Cheikh wax nañ ne bi bég na bég te moo xam ne waajal na ko laata gan gi feeñ wax nañ ne sëñ bi def na ay bernde lu mat juróomi fañ sëñ bi doo ko feeñ waaw waaw juróomi fan sëñ bi bernde na ko mel na am na lu muy waajal ñu doog ñëw ne ko soxna Fat Jaxate am na gan man Serigne Saliou moo ne ma loola ba mu xewee barke sëriñ Touba ne ma xam nga kuñ ma tuddee galas ma ne ko déedéet xaw ma ko de waaye am na ñu ne yónni ci yàlla Saliou mu ne ma defee nga koom ma ne ko am na ñu ne naqiyun taqiyun saalihun saalihun ñooñu ñu tuddee Muhammad am na ñu ne moom la sëñ bi ne ma xaaral ma wax la ci li ma la ma ci mën a wax dégg loolu wax ji de ma wax la ci li la ci mën a wax ak lim doon bokkul ak bokkul ma wax la ci li ma la ci mën a wax ak lim doon bokkul. mu mu ne ma bi ma feeñee ci njaarim waxuma bi ma juddoo de bi ma feeñee la ma wax. moo tax ñiy wax ne ci ba mu juddoo xamuñu dara leer goo xam ne ba fi nekk kenn xamul kañ la ñu wutal ko enveloppe jël enveloppe bi jël leer gi dugal ci kon feeñ nga war mu ne bi ma feeñee xam nga lu sëriñ bi def ma ne ko déedéet mënu ma këyit weex tal la jël ma am ko ma seetaan mu fekkee muy waxtaan ne ci suuf bind ma ne ko déet defal ndànk tungu ne du teewu ñuy nataal man sëriñ Saliou ma wax man mu ne maa ma ne ko nee na ma këyit weex tal la jël xamul lu mu ci bind ma ne ko déet mu ne ma ak ah, lii ma wax la ko ma agsi mu jël quraan yi bi mu tegoon ci tablier bi comme nii teg ko ci ginnaaw daal di bind alif na ma lii la ma ko alif mu bind laam na ma lii la ma ko laam mu bind saat na ma lii la ma ne ko saat mu bind alif ne ko alif mu bind laam na ma lii la mu wicci ko xaalam ko dama xam nga lu ciy kiimaan ma ne ko dee mu ne ma asaale ah man maa leen ko wax sëñ bi tuddee wuñ ko saalihu saaliha lañ ko tuddee te saaliha mooy ma fóoloon bi lii la mooy ki jëf ci daanu ci kawam boo nee daraba saydun amran daraba dóor na saydun sayd amran së verbe siise complément euh, Sëriñ Tuubaa tuddee ko complément mooy lan Saliou mooy wattu sama yaakaar la ilaha la sëñ Moustapha Modou Moustapha Ndiagne nekkoon oh ba def ci lu kenn dootul werante sëñ Fallou ne ci ba def ci lu kenn dootul werante sëriñ Abdoulaye ne ci ba def ci lu kenn dootul werante sëriñ sëriñ Abdoul Khadir ne ci ba def ci lu kenn dootul werante moom la doon mottali al amalu saalih mooy doom ju baax yaa nuuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun xayru saalih yow nuu sa doom ji baaxul mooy amalun xayru saalih day dem sawara sëriñ Tuubaa ne man suma doom baax na al amal saalih wa hab li al ilma saxiixa wala wala may ma xam-xam bu wér boo xam ne ak jëf ju wér mu ne ko lan la mu ne ko assaaliha kooku ba dal la allësi mi nga xam ne yu kammilu dana mottali al amala yaakaar ja bu ko kenn fi lay mébét Sëñ Tuubaa amul mébét yaakaar la am rajaa uman biya taxallaqa biya yura mu xaqaqan wa maa yasuuquhu lan yura yaakaar lay wax moom Sëñ Tuubaa nee na yaakaar da koy am ci yàlla ragal ko waaye nee na boo demee bay waaj bëgg a faatu na sa yaakaar ëpp mooy mooy mooy mottali sama yaakaar mooy mottali sama yaakaar Serigne Saliou mooy mottali sama yaakaar moo tax sëñ Moustapha Saliou mi nga xam ne seetu ci Serigne Saliou ak doom daa seet ak pas-pas ba sëñ bi ne damay tëri Touba jël jël. li ma la ma gis sëñ Touba mayal ma loola sëñ Moustapha Saliou. sëñ Moustapha mi nga xam ni seetu ci sëñ Saliou ak doomoo dafa seet ci moom yaakaar. wane na ab sëriñ ma mu ku wax sa sëriñ da ci wax loo xam moo tax mu ne bi sëñ bi ne damay tëli dëkk bi titre foncier bi tegee ci loxo mu ne sëñ Tuubaa lan bëggoon def ko moo tax titre foncier bi bi ko Ablaye Wade joxee sëriñ bi sëriñ bi téye ko dafa tuur ay xéewal daal na bu ma gisee woon ak sëriñ Tuubaa te joxuma ko lii xaw ma lu ma koy wax waaye nag leen seen xel bu titre foncier bi amatul àdduna tukki xaw ma lu ma koy wax la wax te loolu mooy mottali Tuubaa moomee nag saayir gi ci loolu loolu la ci sëñ bi ko yàlla joxe Touba ci baatin moom mi nag saayir ko moy titre foncier bi kooku kooku kooku mooy Serigne Saliou titre foncier mu téye ko teg ko ci loxoom te itam ma di yëgal ni xam naa ci moom xóotaayu xam-xam wallaay asim dama daan waxtaan ak moom sëriñ bi way naa ko ay way yu tàmbalee tarakat tulul raqaasi yara nabtaha tay su siba yamsi ala saalaani baaru riaami ka annaha mansuratun wasta tululi wa mabraka al buuraani ba àgg ci taxalul bi daal ne daal ne bi ma àggee ci taxalul bi ne xussal jawaada bi suraatin mutayammiman li muattifi subuhaati lil marawaani بحر المعارف الصالح إكرامه متوفر كتوفر الديفاني إن جئته لسيارة لو مرة تسبق عودا عنه للإحسان وإذا استخاذ بك المضيف أخاصه أمن الأهالي أو من التيان قد خاب أن توبى أناس جرائما عملية منكم وسطجان mu jàng xasida gi ndax dama ne ko yow mi am saw naaru góor war ko gaawal wuti Touba boo demee fekk fi ki nga xam ne foo ko fekk mi nga xasida wala mu yor alxuraan di ko jàng wala muy wird moo tax la ko Cheikh Lo waxoon ne ko sa loxo yi bu bëccëgee joxe koy tàllal waaye bu guddee kuréel koy kuréel koy dëggal. tuawwijuhal awraadu laylan fatan hadi fa yusqifuha fi l yawmi battul mawaahib mais sëriñ bi. waxut waxut tagg wi de waaye danaan toog mu naan gone gi ne njuuma la ko doon wooyee tuawijuha al awraadu laylan fa tanxani fa yusqifuha fi lyawmi basun waahibi daal na ko sa sa sa loxo yi wér du moo koy dëngal guddi waaye bu ma cigee joxee koy tàllal xoolo boobu wasfu ma ne ko mbooleem koo xam ne daa loru moo xam tijaan la wala murit yaa koy xettali ma ne ko mboolem nit yi kirim yi newul biir Touba sa opération génn leen xat xaaba an Touba una su jara imin amaliyatan min ko bësab tub yaay moo tax sëñ Abdou Samad mu sëñ Abdoul Xaadir nga xam ne shaa'irun kabir gis naa mu ne law kaana lil islami alfun mislakum bal xamsatun la xadaw ala tuxyaan yi daal na ko l'islam bu amoon junni nit ba mu yàgg mu ne ko ah ah cinq sax laa wax ñu mel ni yow ñu rey mbewte yi bi ma noppee ci way yi xam nga lu ma wax sëñ Mamoun li tax ma xam ne sëñ bi ku doy waar la dañu ma dañu ma mu àllaa da ngay niru uslub ibnul mu àllaa ñi ñiy way sëñ Tuubaa ci diwaan bi ci la bokk dafa am benn bis mu xëy bëgg koo jàng bu tàmbalee rek Yuusu Jóob daaj xam nga Yuusu Jóob bu daajee fa nga déglu te bu te yàlla daa ko way nattu 10 heures lay jàngal ko bu ne kulpit kaamil bi rek ñu su daay mu woo bàyyi Saliou Sow ne ko ah man de Saliou jaaxle naa yow man mu ngi bëggee bi rek di di iisu daaj te mënu maa boole jàng alxuraan ak diggu xasida yi mu ne ko xaaral ma ne wax ak moom mu ne ko de dagay ngay da nga may wax nag loolu nar a moom te loolu da ci wax ak moom te mu nga ci doon dara de déglu déglu rek te loolu dara sëñ bi ne la nga bàyyi xasida ba ngoon loolu wàññiwul dara waaye dana bu ma ci doon dara mu ne ko loolu looloo jàppee wax ak moom Baye Sall ne ko damaa bëgg bu ma àggee ne ko xam naa boo mënoon bàyyi fukki wax ak ñaar nga ñëw jàngal sëñ bi dana gën a dal boobaa dafa gën a dimbali sëñ bi ne ko ah noonu jub la. Sall Sall Saliou gaawal ba mu àggsee ba wax ko ko mu ne ko defe naa sëñ bi mu ne ko déet sëñ bi yebalu ma de man maa sama waxi bopp la mu dem ba ma ñëw. bi mu ñëwee sëñ bi ne ko waaw daa mel noppi na de mu ne ko waa noppi na kay sëñ bi daal jël kaamil daal alhamdulilah rabbil alamin ndax mënu maa boole déglu alxuraan ji te mënu maa ñàkk déglu xas yi daal ne képp koo xam ne doo jàng alxuraan boo dajee sa borom da nga xam loo koy wax te ne li ma def ci li ma def ci xam-xam su ma yëgoon ci alxuraan laa koy def te boobu am nëxëju laa yor romb ko lagan di jàng ci saali sëñ saaliwu si la mu ne ma yee eh, kaay ma ñëw mu ne ma loo yor nii ma ne ko naajul xataa aj laa yor mu ne ma yor jàng dara sëñ bi ma ko wax na ma yor jàng ngóor dara boobu ñett téer laa ma jàng ngóor loolu la ma soññee sëñ bi xeetu yarinam technique bi ci am musuma gis ku yare noonu moo tax aboo bi tuddee ko mu rabbil aji yàlla mu rabbil aji yàlla gi nii kii tërbiyee génération bi ak Cheikh Salifou Mbacké moo tax moo tax ku mu noppi ci yow xam nga am na ku ko wax fii nag sëñ Mbàkke Murid nee na xasida ñi koy jàng ñëpp war nañ ko war nañ ko sant sëñ Saliou dafa am benn bis mu yebal waa Ndoka ci cant yi Cheikh Béthio def cant yu mag yooyu mu xam ne booba daanaka amul taalibe moom képp la dafa booba booba danaan def rey nag mu képp ci xaalisam boobu amul kenn ko topp waaye sëñ moo ko waa Ndoka sëñ mut si bu déggee li may wax xam ne dëgg la sëñ Béthio teral leen perdre leen ba mënuñoo taxaw jàng sëñ bi li mu gën a bañ mooy koy jàng koy jàngi toog léegi nag bi ñu ñëwee mënuñoo taxaw ñu toog léegi bi ñu toogee Cheikh Béthio moom di ko damoomu ndax nee na gis naa lu mu mus a gis bi mu xëyee bay dem bay sant Serigne Saliou dana ko Mbàkke day tey li ma lay sante mooy sa gaañ dañoo soppi aw feemin dañoo dañoo def beneen feemin bu bees sëñ bi ne ko loolu mooy lan mu ne ko bi ñuy jàng dañoo dañoo dañ daan taxaw waaye tey ñoo toog man daal biñ toogee bég naa mbégte moo xam ni doy na war sëñ bi woolu gaañ yi ba mu demee woolu gaañ yi daal ne moom de sama mbir lu mu ci yëg bëggee bëggee ko waaye man de bëgguma ci sallaaw day euh, taxaw day bu ngeen ko defal ne na toogaay booy lépp ndax li jógee ci man seetal loolu kon ko liñ gën a bañ ndax kuy jàng dañ bëgg ko taxaw Sëriñ Tuubaa moo wax ne kuy jàng sama xasaay bi li jaaju ci yow dañ laa war a yëkkati tong la ba nga noppi moo tax sëñ Xaadim Kebe li wax fii léegi nii sëñ Muntaxa ko wax ni ko ceeb boo xamoon li ngay li ngay sa métier bi li ngay li ngay liggéeyee ceeb boo xamoon loolu la demee waaw xanaa buuna yi ñëpp dégg ngeen ko buuna sëñ yonent bi saa seen moo ko sàng moo joxe càngaayam te bi te bi mu koy joxe néeg bi dégg nañ ci ko ko arabe di wax ak sëñ bi sëñ bi génn wax nañ ne xetu càngaay de xam nañ ñu jógewul fii sëriñ bi ne la yonent bi ne la càngaay moo ko war ndax nee na kii ci moom rek la nekk guddi ak bëccëg moo tax sa sa sëñ Cheikh sëriñ bi yonent bi ngeen nekk guddi ak bëccëg loolu lu mat a bàyyi xel la wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan zahara wal mislu xattu lam yura walam yura fi siyebi gis nga bay boobu sëñ Tuubaa nee na benn bind bu yonent bi feeñal ci biir nit wala jenn jikko ñu feeñal ci biir nit ñi moo leen gën ñoom ñëpp wa mes daal na ku mel ni moom desu ko gis lan yura wala yura fi see mi te ay jikkoo mi desu ko gisati rahmatuna xam nga sëñ bi buuna biñ ko dencee daf leen da ngeen daw bu ngeen di ñëw gars yi biñ xilu de si mu ne suñu xel li muy gaaw gaaw xeli buuna yi dem aljana gën a gaaw te loolu xasida xasida yi la Sëriñ Fàllu Mbàkke nee na borom bu naqare bu jàng xasida day suul jëf nee na nee na day suul jëf na day suul jëf Sëñ Fàllu moo ne dafa ku ñëw nit di jàng baat mais xandi mu ne ku mu noppi waaye mi ngi suul saay nag waaye nag fi may tënkee maa dégg sëñ Mbaye Guèye mu ne sëriñ bi mu génnee midaadi yi ne leen ko jàpp xam nga midaadi yi da ngay dégg sax am na ñuy wax ne sëñ bi julli géej gi waxu ci wax bind ko ah kay midaadi sama ndoxum daa wa aqlaam yi ak samay pilim xalima li man ñeel na yàlla bi nga xam ne sax saxa nee na dayyi géej gi alyamma géej gi nee na ko dayyi ko ma teg sama tànk noonu la demee sax saxa yàmm la yàmm fi ne yàmm ba sëñ bokkul baxaru de sëñ bi julleewut ci géej li ñuy wax yàmm ci la jullee mooy fa lëkkam ndox bu ëppee oh. waaw man maa la ko kenn kuy wax ci arab ku mën a dindi li ma am amul kenn li ko wax. bokkuñu. demal demal demal ci garaam demal ci muxjam yi nga tàppe yàmm xool li ma la wax. tàppe yàmm tamit tàppe baxru baxru muhit bopp yàmm man nii mën na maa julli ci géej tax ba demee tabaski julli géej laa julli. waaw moo tax fañ labale woon Firawna fa la jullee fa xasi yow mi nal yàmmi maa xasi yow. wa adalla firawna xawmahu wa ma hada Sëriñ Tuubaa bi ñu nangëree ba xam ne fii ku fi tàbbi da ngay làpp foofu lañ ko nattoo moo tax mu ne li man ñeel yàlla mi nga xam ne sax sax sonel na aliyam géej gi bés na ko teg suufu Daaru Salaam ak Tuubaa sama kaw na teg sama tàgg daal kama sax sax ni ki mu soreelee a saytaane góor mag wal jëx la ak ñàkk xam wal xam maa ak tiisu ñàkk gëm yàlla nee na bi ko bi mu nekk recette jox leen wax leen daaj bi ne leen malaaka yi doon lañ ko jàngee sëñ may fetax sëñ Mayib moo wax ci làmmiñam mille mille neuf cent quatre-vingt-seize soixante-seize ci biir kër sëñ Saliou sëñ Moussa Sall di ko arrêté ci ndigalu sëñ Saliou bande bii fi des dinaan waa kër sëñ Massamba yi bu doon sëñ mo sëñ Moussa Saliou duñ ko duñ ko duñ ko pour ñeex sëñ sëñ bee ko digal sëñ Moussa ne a waxoon ma sëñ Mayib ne ko booba bañ nañu dem ñàngoom sëñ Tuubaa mañ daan jàng sëñ mu des ci réew mi li sëñ Saliou Mbacké xarala ndeke boobu ñoom ngi bëgg a dem dëgg rek sëñ Mayib de sëñ na biñ tàmbalee ba daaj sëñ bi defee ne na xës dig bindatu ko ndax wax naari wa seytaani qad ustu mundama bi rabbi ila quddaami man indihu lasma xanaa xam nga gis ramma bi ñu koy jàng ne rama am koy jàng ne rama sëñ bi ne ko nee leen ko mu noppi man du ma liggéey di ko sànni ramma yàlla yéwénal la sama liggéey dafa am miin dañ ko sant sëñ bi ne rama la wax rama mooy fii sànni na sëñ bi ne man du sëñ bi ma liggéey ñu koy sànni nee leen ko mu noppi yaa ngi dégg sëñ mayim nee na kenn ku ne sa kolu mbubb lay téye fii di la sotti sikki ba naan tol tol ba san digg li di siit mu naan kii na raw na ma ki wax lii raw na ma ba xasida gi jeex mu woote ñu groupe ñu groupe ci kanamam mu ne kan moo wax lii ñu ne ko ah ñun de xamuñu ko waaye yaa ne ko jox say waxande mu ne ah alhamdulilah kon kon dama na bu fekkoon keneen la kon dama xam ni man dëkk dewuguma fenn te boobu mi ngi njaareem de. midaad yi loolu la te midaad yi Serigne Touba am na ko mokkal ko dina ne ko mokkal. nee na boo faatu woon sax li ñu defal julli bu ñu ko deful ñu romb la ndax malaaka yi dañ la yàkkamti ndok cay xasida am na koo xam ne kay ba mu ba mu demee noonu daan nañ ko gaaw denc ndax malaaka yi ñu ma koy laaj ngir bëgg koo teral kon daal foofu laay tënkee kàddu yi. sëñ Abdou Khoudous ñu ngi siyaare bu baax di bëgg ci sa teewaay. sëñ Mor Fall kii sama xarit. ab Baye kii Ngéejaan bañ fa sañcee moom magam indil lañ ne ko lu ne. ci ay yére yére xale. ba Serigne saali mujj leen ràññee lool Serigne Saliou boo bëggee mu ràññee la li li ndongo yi soxla de ko def man gis naa comme daaw sama doom bopp ji xam nga kooku lu daan def lu ay tabe yi ñu lay laye laye suuf ak i kaamil ak moo ko gën a milliard boo koy jox dem ba ko sama doom yi bopp ji barke Sëñ Tuubaa moo tax moom Ahmadou Guèye mii li ko inkwal muy dem ci gone yi loolu lu garaaw la waaye dal yi day daal di yëkkati caabi bi ci poche bi na laat ngay demal tëjal ma lii. sëñ Fallou dooguma la moom mii. Ah. njabootu Cheikh Fall gi newoon ngay jaan ay doomu si ñoom di xadi Fall yëpp seen si loxoom la ko sëñ Fallou tegal mu leen doon jàngal. ñaar fukk ak juróom lañu. Ah, man fekk naa ko ngay jaan ba ñaar fukk ak juróom lañu. Ah. ñaar fukk ak juróom lañu. sëñ ma ne sëñ Amdi Xadi bëgguma fee nekk ba jóge fi di joxuma sama doom sëñ Touba joxuma samay doom sëñ Touba ci mujjug Serigne Saliou Mbacké la jox ñooñu sëñ bi ñi ay kilifaam lañ ñooñu bëri na ñoo xam ne seeni téere fa mu àgg ci man la ko yàlla dogalee xëy na noonu daal la ko yàlla dogalee sëñ Mamoun damay dellusiwaat ci yow. yaa baax dañ koy ñaanal rek moom nit ku baax la. ko ñëpp di ñaanal. Cheikh Mbacké man li may neex ci nit dafa ne ci yéen ñii mooy koo gis muy xool keneen daa xeebu waaye ku xeebul sëb cër sëñ aada da nga yem sëb cër sëñ Mbacké hmm. li ma wax nii tey. seen dënd di rëcc ci yow. da nga noo dimbali ci moom nag da nga noo dimbali. defe nga ne danaa ne kii maa moom dañu doon awante di bësët ba bësët te du dëgg dama ko ñemee. dépassé nga foofu. te tey bu ñu ko déggee dama taa soxna dëgg bi. kii kay ni ko ni ko gaañ xamee sax xamee woon ko kenn gis nañ ko ko fonkoon. yàllaa dogal ci man li na ci nit wax ko garaaw ci man. tey ni mu ko daan woowee sëñ Mbacke Mbacke. sëñ Mbacke Mbacke ko daan wax. tey sëñ na ko ba tey man sëñ Mbacke mooy yii rek kon daal sëñ Mamoun. sëñ Abdou Khoudous. sëñ Jili wax dëgg yàlla Daaru Salaam 10 la nekkoon. doon ku jàmbaare ku baax. sëñ bi bëggoon moom itam fonk ko sëñ bi moom boo xasee ne ci liggéey bu lay liggéeyloo xoolatul ak ndaw ci yow bam ne ila tawalifi yaqulullahu asrara la ilaha illa allah daal ne mayit maa ngi wootalul sama daara <laughs> te di nga wolu Cheikh Mbacke Dia Sëñ Tuubaa nee na sama taalib yi secret yàlla laa ilaaha lépp ci biir ilaa tawaali bi yaquudullah asrar laa ilaaha secret laa ilaaha yàlla wam na ko jëme ko sama mbind mi moo tax xës li ku ko téye xamal na yaa ngi ci biir yàlla bàyyi xel loolu su ko foyee tey bul bul bul ko bu ci dëggantu jàngal rek teel tax ndax yàlla ngay waxal fi ne te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne fu ko tàmbalee mu ngi ciy njoowaane wuru seen ndax nit bokkul seen tubaab kon daal maa yemale kàddu yi foofu